simile léegi leer na termine yéene kay ne Cheikh Yérim day ñetti atu yàlla kon lañ ko tëj ca kaso ba allahu akbar direct info ne ay avocat am day dañuy delluwaat kon ca tribunal ba kon def appel sénégalais yi nga xam ne nag jot nañ leen laaj yu bëree bëri la ñu xam ne daal mooy mbir mii ñu teg kon Cheikh Yérim Seck mitti na lool mitti na lool SBN ne mbir mi mitti na teyit gëw ma ne nag viol kon am na ca pièce boo xam ne maanaam dëgg sërëxal kon gu ñu gasal nag journaliste bii ndaxte xale bu jigéen ba ca boppam maanaam atte bi li muy am yëpp ay sa tatal mii waxul dëgg day fen waxul dëgg waaw waaw du samay kaddu de gone gi ne juróom-ñeen fukk ak juróom quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ci xale jigéen yi mënuñoo gëm li xale bu jigéen bii kon nettali ci mbir ma fs ne yow ab xale bu jigéen boo xam ne fukkeet ak juróom-ñeent nga am luy njiig mooy njaak parce que moom moo dem kon fekk ku góor ca benn auberge Bernard Mendy ci yéene kaay gi ne dogal bi nga xam ne kon attekat yi jël nañu ko nii waaye lii daa miti waay yow nan la ab xale bu jigéen mën a bàyyee góor mu jël taam sol préservatif mu xaarati ko mu dikk def ko ko ko te kon ay maître Malick Ndeng di avocat wu Cheikh Yérim Seck ci Walf Grand Place ne xale bu jigéen bii di Aïssata Tall fukki minute ak juróom mu tijji ay tànkam waxul dara sëqatul kaasul Cheikh Yérim bettu ko fitnaalu ko violé ko xale bi tijji ay tànkam fukki minute ak juróom waa def ko ko mu dikk naan viol maanaam atte bii nga xam ne kon moom la ñu atte tey nii ñun gàcce kon la ci am parce que viol amu fi mitti na ba joolaa suux ba mitti na le loo xam ne kon war na koo def ci wàllu wàllum justice gi dana ko def birima ci tribune yéen a kaay ne Macky Sall nag ñàkk teewaayam démb ci màggalu suuxu batalo joolaa googe la koy mandargaal mooy cër di importance woo xam ni kon Macky Sall maanaam jox na ko dem bi nga xam ni kon moom la demoon ca Amérique gae ca Nations Unies mu nekk nag maanaam bu njëkkam waaw waaye booy xool ba ci biir ci wàllum politique di communication politique Macky Sall cëram woon xëj na mooy mu bàyyi xel yaakaar gu tas gi nga xam ni kon moo ruusee ci njabootug ñi loru kon ci suuxu batalo joolaa waaye it xalaataat askan wi yëpp a kon dàmp nag côté yi nga xam ne maanaam mooy miti yi yow Macky Sall bu leen bàyyi woon xel piis leen rek xool leen xool gu ndaw dana am kon lu mu def kon ci seenu xool waaye loolee lépp amul de déedéet démb daal la ñuy seetaan télévision bii gis président Macky Sall di recevoir audience général Babacar Gaye ma nga xam ne kon ma nga ca Amérique googee la ñu ko yóbbu yow général Babacar Gaye moo ngee nga xam ne luy njiig mooy njaag ci batalo Joola googee nga xam ne général bi daa waroon a kon jël ay matukaayam ngir rawale ji ñi nga xam ne kon ñoo suuxoon ca batalo Joola boobee général bi ne dem ca ndar ndar géej seeli waaw fa benn commandement militaire moo ko gënal allahu akbar tribune yéene kay ne nga yaakaar ne jëf ju mel comportement boobee lu mu irresponsable du cëru mag léegi nag président Macky Sall moom kookee kon la doon recevoir ci bisu ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre lii saaga sax boo tayul xëj ci ñi nga xam ne maanaam ñoo loru ci suuxu batalo joolaa googee président da a saaga waaw waaw Malamine Badji bokk ci ñi nga xam ne maanaam rëccoon nañu ca accident boobee na comportement wu kilifa yu bees yii xam ne maanaam ñoom ñoo fi ne ah, boppam daa ñi nga xam ne kon ñoo batalo Joola googee ak njabootug ñi nga xam ne ñoo lorule ci suuxu batalo Joola parce que président de la république daa waroon a kon nekk Ziguinchor gee parce que bii yoon mooy premier anniversaire suuxu batalo Joola mu fekkee kon ab nguuram c'est pas normal quoi Macky Sall di génn réew mi naan kon ma ngay dem ci bitim réew laas ne maître Ousmane Seye day ñëpp la taxal ñëpp la taxal ne Madani si ñi indi lii yëpp xam na leen Habib Thiam nag erreur bi mu dul dabooti te boppam kon ñu sulli ko nañ ko génnee ñii danañu génn bennoo bokk yaakaar de l'office ne kay ne waa réew mi kay daanaka ña ca buntu ba si génn nañu jëm de libération yéene kay ne njaw laa ngi wéy te de su xamin diggante njabootuk Idrissa Seck ji ak njabootuk Macky Sall gi Lamine Diallo adjoint maire bu Thiès Nord moo wax ci turu kilifa yi réew mi bu Thiès googee nee na nii nga xam ni ko noonee la gaay di doxalee bu continuer nii ñun waa réew mi dañuy ci biir coalition bennoo bokk la wax li Lamine Diallo ne lu njëkk lu ñuy njëkk naqarlu mooy njabootuk gi nga xam xam ne dañuy dëkk ci njabootu Idrissa Seck gii di ronqi maanaam seen i militant ak seen i kilifa yi nekk ci parti bi mercenariat la waa réew mi di dem APR ñaareel ba mooy gouvernement Macky Sall bii jaare ko ci ministère économie ak finance am dañuy jéem kon xoj mairie bu Thiès bi lée projet yi nga xam ne maanaam ñoo nekk ci mairie bi yëpp ngir boole kon Idrissa Seck ak askanu Thiès gi lée Lamine ne ñin nag mënuñu fee nekk juróom-ñetti atu yàlla yee nit kese xoolal ma conseil des ministres yi ñu defee ci région yi ginnaaw Dakar kay Thiès sa ca waroon ñu jël Thiès def ko ndaare dama ne bu lii continuer ñin waa parti Idrissa Seck bii dañuy génn Benno Bokk Yaakaar Mohamed Saleh Merzouk mooy haut commissaire de l'OMVS ci le pays e au quotidien ne maître Abdoulaye Wade kilifa la ci yorinug réew maître Abdoulaye Wade est un grand homme d'état waaye OMVS si Mohamed Merzoug mi waaw nee na il faut ñu wut yeneeni yoon ngir wuti fa énergie de courant bi ah tàng na daal ba tàng kay mooy ca diwaanu Gambie réew mi quotidien ne coup d'état mbaadu moo am ca Gambie waaye Yaya Jammeh kat nee na mes ne men teng kon ca palais ba daw i maa la wax li le ay soldaar ñoo doon xeexeexu miti ba deret ju baree bari kontuuru na ca aéroport Yundum la enquête yéen kay ne Yaya Jammeh kay nee mes dem ca village am bee ca Kadilaay ah waaw parce que daa am kat ay militaires yoo xam ne ànd ñoo Yaya Jammeh ñoo doon jàppanteeg yeneen i militaire ca aéroport yu waaye lii nag bettul kenn parce que ba Yaya Jammeh tàmbalee di rey ak léegi ni la adduna wërngal këpp gépp ñoo jàppee ne mii ab dictateur la buur la di bum di bumi lu ko neex def Macky Sall ci boppam mel na ni kon jàppaleetul kon kii di Jammeh am na ci it ñeneen ñoo xam ne kon ñu ni Gambie CNT Ndakaaru gii la ko lancé démb daal doon nañ lancé bal ya telli telli jëfoo tollu di ko dégg <laughs> man day ay balu fetel si boppam sax alaaji man dama ko dul waxtaane balu fetel teel teel teel teel teel teel alaaji tëjël teel teel teel teel teel teel alaaji ma tëjël waay